ñàkkum soble nekk na lu ñu nemmeeku ci yenn marché yu nekk ci capital bi te loolee rek day indi ay gàllankoor ci ñu koy jaay ak ñu ko tàmmoo jëfandikoo ndaxte soble nag nekk na lu ñu tàmm di jëfandikoo fii ci Sénégal ba tax nag jiite l'association des consommateurs du ko ASCOSEN di nakarlu lu ni mel ba noppi rek di indi ay leeral ci lu waral boobule ñàkkum soble. Euh, li ko waral mooy manque d'organisation Euh, d'abord boo xoolee soble bi ni ñu koy bayee fii moo ëpp li ñu soxla. ndax problème stockage am na te stockage yomb na lii am li nga mooy nga am hangar boo xam ne danga nga faa def ay étagère teg ci soble bi muy féex rek loolu rek la ñuy soxla. beneen bi aussi mooy état warul toog di seetaan ku nekk di def lu la neex soble boo xam ne ñu ngi koy jaaye ba ay 1500 ci biir réew mi te fi ñu koy produire lam fay dikk rombul 200 y a en problème. donc loolu moo tax aussi ñu ne état na def liggéey bi nga xam ne moom la ñu xaar ci moom mooy réguler marché bi. kilo soble jugee ci téeméer ak ñeent fukk jàll ci ñaar téeméer ak ñeent fukk ci suñu koppar bu ñu sukkandikoo nag ci ki jiitaas ko seen ju nekk ñaar téeméeri soble yu ñu wàccee ca port autonome de Dakar na rek wàññi bi la ñàkkum soble bi ci marché bi ak saafaraal yenn rëkk-rëkk yu ñeel njënd mekk njaayum soble mi. waa xam nga soble bi d'accord actuellement ni manqué dafa ëpp doole trop. boo ko déggee rëy na waaye fukki fanu consommation la. donc il faut que loolu continuer di continuer pour que ñu mun a euh, vraiment euh, indi soble bu doy. looloo tax ñun dañuy wax ne état dafa war a def li ñuy wax euh, conservation maanaam jël stock boo xam ne day nekk stock de sécurité boo xam ne suñ ko tegee à ce moment stock boobu. balay soble balaa muy jeex rek mu mun a génnee soble bi bu dee soble bi jógee bitim réew am na retard. njiitu Ascosen Momar ndaw di ñaawlu cherté soble bi ci marché bi ndaxte moom jàpp na ni njëkk yañ koy jaayee tegawul ci yoon na ngir saafara lu ni mel ñaari junni ci ay tonu soble ñu ngi koy xaaran fi lekk ñuy wàcc le grand magal de Touba.